waaye ko wax ne mbi def yi ci saan ñoo yem mooy daf bëgg wax ne néegam yàlla bu muy xarmaal bu moo yeneen barab yëpp ñoo yemoo loolu dëgg la déedéet wasaatul xajri aswad ak ku wax ne jëmmi xajri aswad musaawitun aji yemoolaak li saayiri xijaarati ardi mboolem xeeri suuf si xajri aswad ak suuf si yëpp yem loolu ko wax wax na dëgg déedéet yemul wa zaati rasulillah wala nga ne jëmmi yonent yàlla bi sallallahu alayhi salaam sallam musaawiyatun aji yemoo laak li zaati xëy na ñeel jëmmi keneen jëmmi ak jëmmi keneen ñoo yem ko wax waxu dëgg. wax ne yooyu yem way ne ma tafdiru naka gënale gi fi ci loolu bi umurin ci mbir la xaarijatin bi aji génn ani zaati ci jëmm ji bu ne yonent gi bi li tax mu gën ñu mooy risaala gu ko yàlla jox waaye jëmmam si moom gënu jëmmi keneen mu ne loolu ku wax dëgg. wa sifaat ak melo yi alqaayima yi aji taxaw bi haa ci moom melo yi yàlla feñal ci yonent bi bu tax bu dee loolu nga wax ne moo tax yonent gën waaye jëmmam kese taxul mu gën kenn mu ne waxoo dëgg waxna dëgg na ndax ci cosaan garaat yemuñ waajir ak xaawilu yi la yi la waxin waam saalo ak yu mel ni ñoom minel jinaayaat muy bokk ci tooñ yi allati yi nga xam ne jënaaxaa tooñ na ko al mutakallimoona waxkat yi ala shariati sharia dafa am mutakallimoona mooy ñi nga xam ne ay débat yu ne génne nañ ko ci lislaam di wax rek di wax rek di wax rek di wax rek seen lay mooy dañuy aar lislaam fekk dañ ko yàq mu ñoo dem ba génne xalaat yi wana sa buwaa ñu askanee ko ilayha jëm ci lislaam wayel wayeta shariatu wayëg day dellu shariatu bëri atun aji seet la min haa ci yooyu léegi sharia dañ na ci yooyu wala maamum ànd ak ñoom ak sa min istiraaki zawaati ci bokk ak jëmm yi fii am nañ ci mbir amin baaji matali seen lay daal mooy ay yëpp du benn lañ ci cosaan kon benn dara wa dalika xemoo ci cosaan ci benn mbir bu matale laa yu jibu du waral tasaawiya seen ak yemoo fi xaqiqati ci dëgg-dëgg li na muxtalifaat ndax mbir yu كاتستريك من نيو بوك في امر جي بير امين بو اجي ماتري ما اختلاف عندك سين ووتي في صفات يا سين ميلو عندك سي يكي بكر وا مو جوخني سي اكزامبل سي وخا ييب ندوخ لا واي هموي من هو سوا همل الله تعالى تعالى كون بين ذات المسك دمي جمي ديغنت جمي بارفو وذات البول اك جمي تور ندوخ ابدا بفو ñoom ñaar ñoom ñoo bokk di ndox waaye wala bayna zaatil maay du caagan jëmmi diggante jëmmi ndox wa zaatil naari ak jëmmi safara abadan ba faw ndox ak safara duñ benn bokk nañ di jamaat waaye nag duñ benn <laughs> kon kon mbir mënuñoo bokk ci benn ci san ñëpp mënuñoo bokk ci mbindeef waaye duñ benn melo yi du benn garaat yi du benn وتفاوت ووتي البين غادي لير بين الأمكنة الشريفة دي تي ديغنت برابي تدي وعدادها أكسيني سفان وزوات الجمي الفاضل يأمنين وعدادها أكسيني سفان أعظم موغن ماغمي هذه التفاوت تي بلووتي بكسير تشربري إذن ندخ نموتك سفر تنم نعنب جمار لين ولا تور ندخ نموتك بارفون تنم نعنب ندخ لين نون لا برابي تدي ووتك يدو نيوم ci cosaan wala sax wutee googu moo gën a fës gën a leer dégg nga fa bayna zaati Moussa nekk na diggante jëmmi Moussa alayhi yàlla nekk si moom asalaamu wa zaati Firawna ak jëmmi Firawna mais tafaawut ci wutee enzamu lu gën a màgg maa beneen miskili nekk si diggante parfum war a ji ak dem duus Moussa nu mu gënee Firawna ci cosaan rek laa wax moo raw nu parfum gënee ay cabinet kii dara kii nag lépp la wa kazalika nag noonu atafawutu wutee bayna nafsil kaabati diggante jëmmi kaaba ga wa bayna bayti sultaani ak diggante kër buur entrainement moo gën a màgg mais dafa tafawuti ci biir wutee ay ren ba tey bi kasirin ci lu bëri kaaba ga kër buur xam nga ne kaaba ga hmm? mhm. nim gënee kër buur yi moo gën a foor ni misk gënee ay kabine ok fa kon naka tujaan la ñuy defal al ñaari pàkk yi sa waa ñu yemoo fi xaqiqat ci dëgg-dëgg moom dafa bëggoon si cosaan la mbir yi gënee bu ko defee kenn ku nekk la nga gën sa morom moo tax yàlla jagleel lu sa morom amut moom loolu la bëgg a wax fi mu nekk nii am na ci ay lay nag balaa ci ci ci nasu balaa muy indi lay ci xel wa tafdilu gënali bi itibaari maa yaqaw mooy buñ xalamee ci lay tabi hunaaka foofu min ibaadaat ci jaamu yàlla wala azkaar ak ay sikkar wa daawaat ak ay ñaan mooy loolu nan lañ koy waxee nan lañ waxee ne mbir yi ci caan ñoo yem jaamu yàlla lañ fay def ak zikkar yi ak ñaan yi moo tax barab bi gën barab ba de mu ne loolu dëgg de barab bi dafa gën barab yi avant ñu fay def benn jaamu yàlla moo tax yàlla jagleel fa jaamu yàlla yooyu da nga xam lu mu bëgg wax kon barab bu nekk rek suñ fa defee lu baax xamal ne barab boobu barab la bu yàlla tànn ci barab yi mu am ngëneel moo tax ñu mën fa def loolu jëmm ju nekk noon noonu la walam naqsi jubluwuñ istifa ar raddi matarak tontu ala hadal mazhabi ci bile ngir al mardud bañ delloo al marzul wala añ toroxal maanaam ngir mu suufi mii di wax ne mbiri ci cosaan ñooyam mu ne jéemuñ koo tontu dañ ci indi exemple tuuti rek way ma maa xasat naa nako jub nañ taswiruhu melalal la ko ba nga comprendre way labi bi jëm na ci aji am xel alaajiri ku am maandu alaaqili ku xelu attaxa ku mu atte wala ya am bawul du faale allah wala wa ibaadu ak jaamam bi xëy ci lu mum séwun da yàlla dégg ak jaamu yàlla soxla wuñ ko mu xel ku am xel la mu baatee dana xam lay dëgg wallaahi yàlla subhaanahu wa sallam laa yu xasisu du jagleel ci an dara walaa yu fadilu du ko gënale walaa yu rajihu du ko lëngal maanaam yëkkati ko ci kaw leneen illaa li maana lu mooy am maanaa yaqtari buy waral taxsiisu ñu jagleel ko loolu wa tafdilu ak gënale ko kon boo xoolee ci cosaan sax mbiri dañoo gënante moo tax yàlla gënale moo tax tooñu daal yow mi société bi nga yor di ci di liggéeyal ay nit bokkuñ fa ndax garaat yi bokkuñ léegi yow yow dangaa ñëw rek xool ku la neex nga fay ko ko neex déedéet kii dafa am xam-xam boo xam ni moo yelloo grade bii nga teg foofu door ko jox fay boobu kii amul xam-xam boobu nga jox ko grade ba mu yelloo ak fay gu tolloog moom yàlla it noonu naam waaw xuwa moom yàlla moo ti mooy jox daalikal mu rajji loolu tax ñu lëngal morom ki ci morom ko waaye boobu moo ko may moo def ci yow melo woowu pare jox la nag grade bu sa morom amut waaw فهو الذي ما كان خلقه خلقوا مو بند لي تخ نغم نغن با بار غنال سو مختارو توب مو تان واجي بعد خلقي غناو مكو بيدي كون بوم كوي بند لا مو نيالي سي موم لي تخ مو مانا غن با وربك صبرم يخلق دنا بلي ما يشاء لو كو نيه def ci mom ngeneel wa yaxtaru mu tan ko ci feñal ci mom ngeneel bu rebe jeexal buntu bobu tay gën a lenn ci fan yi wa ak lenn ci weeri ala baadin ci lenn yi dégg nga tabdilu baadil ayaami gënale lenn ci fan yi wa shuhur yi ak weer yi ala baadil ci lenn dafay wane ne yàlla yenn fan yi sax daf leen a may daraja ci kaw yeneen fan yi yenn weer yi mu may leen daraja ci kaw yeneen weer yi kon mbir mi dafay wane yàlla mooy tànn lu ko neex ku am xel lu amul xel lu neex yàlla mu ومن هذا بوكنتي لي تبديله جنلي جن جنلي بعض الأيام لن تفني وشهور أكبر على بعض تلني فخير الأيام اللي جن تفني عند الله في الله يوم النحر ما يبيسوا بلجبة ما يبيسوا تبسكي وهم يوم الحج الأكبر ما يبيسوا بحج بمكبة نقاش لن يور ورد إفادك kama fi sunna ni comme ñëwee si téere sunna yi anu jëlee ci yonente bi salla yàlla doo ko allah wala alayhi si moom wasallam doolu ko mosa andoona moom xaala wax na afdalul ayaami li gën ci fan yi fa yàlla yow mu mooy bisab loj ba di bisab tabaski ba su ma yowmal xar di topp bis ba ca topp parce que bis boobu dañ si dañuy sax minan moo tax ñu tuddee ko yowmal xar ndax yastaqiluuna fii bi minan dañ cee sax minan kon bisu tabaski bi ak la ci topp bis ba ci topp loolu mooy bis yi gën fa yàlla gis nga bis yi yàlla daf leen yëkkati ci yeneen bis yi moo tax ku nangul jagle rek nanguloo yàlla waqiila wax nañ yow mu arafa bisu arafa mooy bis bi ñuy taxaw arafa afdalu moo gën minu ci bisu tabaski bisu laj dafa am ñu ne moo gën ñu ne bisu arafa moo gën wa hada lii wa moom almaaruf mooy lañ xam ne asaabi shaafi ci ñooñ shaafi xaaloo wax nañ li annoo ndax moom yow ma xajjil akbar muy bis bu bisam xaj bu mag ba değil mi? Alam kun yum e bisu arafa ve bisab haccul ekber da ar haccu arafa فريدك بسبب تبس كبيرة وقت وسيام وهاركم من بسبب عرفة يكفي ولا فيفار السنتين يعني أت يباسي أت يباسي أت يباسي وما من يوم أم بن بس يعطي قدرة قرى الله يعلى في جمع أريخاب دقي أكثر لأب من جمع في يوم عرفة بزب عرفة ليالا دي قرى أي جام بزب عرفة دفت كتي بنن بس جامي قرى السفرة بزب عرفة دفت لطول نون بنن بس ولأنه غير نمام سبحانه وتعالى مثلا وتعالى كبنا يبنو دنا جاگا في جمع من عبادي جامي ثم يباحي تقنقو قرى ملائكته ملائكة بأهل الموقف جمع تفايبا bisu arafa yàlla dafay jege jaam yi dafay jege jaam yi di puugare wanteeg ñoom di di puugare ak malaaka yi di am na jaam yu baax waaw ñooy taxaw arafa yàlla daf leen puugare woo ci kanam malaaka yi am na ñu ne tax ñu ne bisu arafa moo gën waaye wa sawaabu lay jub al qawlu awal mooy wax ji njëkk ja ne bisu tabaski moo gën bisu arafa loolay gën loolay njub li anna al xadis ndax xadis ak daal la bi aji tegtal ala zalika ci loolu laa yuariduhu mënu wuuteeg moom cheyun dara yu xaayu moomu ba mën a jànkuwanteeg moom kon xadis bi yéen too xam ne fan yi gën mooy bisu tabaski waaw waxi jàmbur na lu tax ñu dàq xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent moo xam li gën nee fan yi gën ci fan mooy bisu tabaski la ci tegu mooy bis bi ci topp kon kenn mënul gënale arafa ci kaw bisu tabaski من حديث بي دافي ووتك موم ني واخنا عرفه موي بيسو حج الاكبر من واخ جوجي جوبوت لاي جوب وصواب لاي جوب ان يوم الحج الاكبر ني بيسو حج مك با هو موم يوم النحر موي بيسو تبسك با موي يوم الحج الاكبر لي قوي غير واخ يالا تعالى كمان واذان جيغل من الله بو جيغي سي الله ورسول الله يرن تبي الناس جيم سي نيني يوم الحج الاكبر بيسو حج مك با التوبه تلول بيسو تبسك با خلقوا بو بشو تبذكي لخوان وصفات الصحنة في صحيح نيتي بخاري مسلم أن أبا بكر أبو بكر وعلي أغالي رضي الله نقرم الله وعلى عنه ما شنو منار الزنا يقلن بذلك تيول يوم النحر بسب تبسكي لا يوم عرف دو بسب عرف كان خوبي أبو بكر أغالي ينتبه يوني لين لين آه، خيو خيو بو إسوار بو بسو تبسكي لخوان وعيد قولون بسو بسو عرف كون يوم حج أكبر حديث بموقف فيرين موي بسو تبسك دين أي يلا دي قام لنا دين نتي بوكالي قال أن لا بريء من المشركين وفي سنن أبي داوري بوانا من سنن أبو داوري بأخي إسنارين سيسنن ديگن بير أن رسول الله أن ينتهي الله بيصلي أن الله عليه وسلم ومسلم قال أن يوم الحج أكبر بسبب أجب يوم النحر موي بيسب تبسكم بيسب لجبا يوم يونتو موفيري كان موي حج الاكبر وكذلك نكون قال له ابو هريره ابو هريره وجماعه الانبار من الصحابه دي الصحابي وانا ندال يوم حج اكبر موي بيسب لجبا من يوم عرف بيسب عرفنك مقدمة لا تعالى اليوم النحر بسبب لجبة بين يديه شكرا بسعر فدال من جاء وحنا lay taay la ñeel bisab lëj ñaari yàlla bu naree indi bis bu màgg lay jiitu bis boobu daf koy màggalaale euh, bu naree wàcceeku ku màgg ñaareel ay nit yu màgg dañ koy jiitu foofu ñaareel fay na fii naka ci bis boobu yekkoon lay nekk am xuufu taxaw mooy bisu arafa wa tadaru ak toroxlu التوبة أكتوب والابتهال أكدال تيالا والاستقالة أك قتي ميرتش سي بكار ثم يوم النحر توك بسب لجبة تكون لينك الوفادة ببنك تور زيارة جيالا وزيارة أكزيارة ولهذا لما تخصم يتدن توافو وتكابة كتي بسو لجبة وبسو فكر بچي وراج توافو زيارة وتك زيارة كون برانغا زيارة جيالا danga war a dañ ci lépp loo xam ne ka ngay ziyaare bëggul ko bisu arafa nag pour sangu ak préparer ci dañ ci mbooleem lu yàlla bëggut moo ko tax a jóg euh, euh, dañ googu ngay dañ ci lu yàlla bëggul li ko tax a jug pour nga mën a dugg ci payam moom yàlla ziyaare ko kon xam nga ne li nga xam ne mooy sa jubluwaay bu gën a mag mooy ziyaare yàlla moo gën a fool li nga xam ne wàccaay rek pour ziyaare ci booy ziyaare ab buur dajeeg moom moo gën a foor wàccaay yi ngay def ndax wàccaay yi bu dul dajeeg doo ko def moom bisu arafa bu bisu laj bi du am moo tax mooy li annoom ndax ñoom qad taharu laab nañ min zunubim seen bakkaar yow ma arafa bisam arafa summa azina topp mu digal lahum ñeel na rabbuum seen borom yow ma naxari ci bisab laj ba fi ziyaarati ci ko wa duxul ak dugg xale yi ci yàlla ilaa bayti yi ca néegam ba mooy kaaba ولهذا لم تكال نيك في جي بيسو لاج بي زبح القرابين رني جامو كاي جامو يالا موي ناغي ني جامو يالا جوريا وهل قرؤو سي تي رني وات كراوي ورم الجمار سي رني سان جمرا وموضوع افعال افعال الحج لي غنا ماغ سي وير اجي فرن كوي داف وعمل يوم عرفه اك وعمل يوم عرفه ليغيو بيسو عرفه bisu xarafa liggéey yi nga xam ne ña ngi ko fay def lépp kattu xóori ni ki laab wala ixtisaali ak sango bayaan yi day xaadal yow mi ci kanam bis bii dégg nga maanaam moo tax ñu koy def la ci bisu xarafa muy sangu gi ak laab lu géeg yooyu yëpp pour waajal bis boobu rek moo tax wa kazalik nekk noonu tafdilu di dil hijja gën fukki fan ci weeru tabaski laa ci loolu moom ayaami ci fan fukki fan yi tabaski yi yàlla gënal na ko kon yegg na ci teqale diggante ak bisu tabaski bu ci gën wax na lay yim <clears throat> mu ne bis fukki fan yi ci tabaski yàlla gënal na ko laa ci loolu moom min ayaami ci fan yi fenn ayaamu naka fan yi eh, tabaski afdalul ayaami moo gën ci fan yi àndalaay ci yàlla وقد ثبت سخن في صحيح البخاري في صحيح البخاري عن ابن عباس جريش ابن عباس رضي الله عنه ما شنو منار قال وحنا قال وحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام اموت فني فن بوقن العمل جف اساي رباخ في اتمم احب موغن صوب الى الله جمس يالا من هذه الايام كي لفن العصر يفك فن بوقن ني دبل فيال رباخ moo gën fukki fan yi ci weeru tabaski amut kon dang ci day gën a jaamu yàlla ci fan yi yàlla tànn kooku lu baax la ndax fan yi yàlla bëgg gim ko bëgg moo tax jaamu fi yàlla mooy gën a neex yàlla hmm. loolu waral jàpp naa ne di tànn fan yi yàlla gërëm yokk ci say jaamu yàlla barab yi yàlla tànn nga yokk ci say jaamu yàlla kooku kenn waru ko bi daaloo daal li bon rek mooy jaamu barab boobu waaye fan bu yàlla tànn jaamu fa yàlla moo gënal yàlla fan bu yàlla tànnut kon yàlla léegi rek ci gannaaw wax nañ fi ne barab bu nekk balaa am gëneel dafay fekk mu gën a mérito ngëneel loolu fukki fan yi ci weeru zil xijja dafa gën yeneen fan yi moo tax jaamu fa yàlla mooy gën jaamu yàlla ci fan yu dul yooyu kon yokk si sa jaamu yàlla lu am solo ngir na jaamu yàlla ci barab yooyu dafa neex yàlla naka noonu it barab yi am ngëneel ak fan yi am ngëneel yokku fa say hmm? ne màkk mooy fa kon mooy yàlla mooy gën ci moytu ko ci beneen barab parce que màkk barabu péeb yàlla la yokk fa say jaamu yàlla moo gën yokk ko ci yeneen barab ndax foofu jaamu yàlla dañ ko fay ful naka noonu mboolem fan yàlla tànn yëkkati ko rek jaamu yàlla goo fa def ngir yokk ko fa waaye nag nekkul ne nag jaamu yàlla yooyu force lañ koo jagleel bis bii rek waruñ ko def ci lu dul bis bi waaw loolu moom bidaa la boo ne bis bii rek lañ ko war def waruñ ko def ci beneen bis bi sos na ci yeneen lu ci bokkul waaye boo fay def ay jaamu yàlla rek ngir lan ngir jublu ci yokkutee ci ba ak say jaamu yàlla dara nekku ci loolu waral fan yi nga xam ne fan yu màgg la mag ñi doon ci jaamu yàlla suñ mënee dara xale jaamu yàlla yi mooy gën at ñu def ci lii beneen at ci leneen ngir wan nañu ne liñ jublu ci fan yi mooy yokk ci jaamu yàlla ak fooglu fan yi yàlla tànn nga di ci yokk ci jaamu yàlla loolu lañ ci jublu waaye nag jagleeluñ ci jaamu yàlla buy wane ne ah, yi moom ci bis biir lañ koo def saa yu at mi ñëwee loolu lañ fa war a def loolu moom ah, dafay ñuul luñ sos ci diine dégg kon yonentu nee na amul ci fan yi fan boo xam ne liggéeyal fa yàlla ahabu moo gën a sopp ila laa jëm ci yàlla min ayaami al ci fukki fan yi xaala wax nañu walal jihaadu caageen jihaad fi sabilillahi ci yoon yàlla xaala mu ne walal jihaadu caageen jihaad fi sabilillahi ci yoon yàlla illaa rajulun lu mooy góor xaraja génn na bi naf si si moom moo maali ak àllam su ma lam yar jëf topp delluwut min zaalika ci loolu bi seen ci dara koo xam ne nii dafa <clears throat> dee nga jël alalam ak léppam ngir jihaad ci yoon yàlla te ñibbisiwut ah kooku de lam def moo gën jaamu yàlla ci fan yi xataa bu fekkee da ngaa jihaat it delloo ci dellu si ci sa alal ak sa bopp dafa mel ni jaamu yàlla ci fan yi sax moo gën jihaat ko kon diine tamit dégg ko am na solo fan yu baax yi di ko dàkk di ci yokk sa jaamu yàlla dara nekku ci waaye liñ bañ mooy nga jagleel ci jaamu yàlla goo xam ni da fan yii rek lañ ko a def jaamu yàlla googu fan yooyu rek moko jeko te yonent waxul lol alquran waxul lol lol moy ñuru bida lol mo tax ñu bisu àjjuma ñak fa liggéey dañ ko sip ndax lan ndax bañ nit ñi japp ne sunna la bu fekke da nga faa ñàkk liggéey nag ngir mën a waajal gi dara nekk ci mais boko jappé sunna japp ne comme ko bisu bu mag la kene wuru ci liggéey da ngay sos ci diina lu ci bokku lol mo tax jar naa daw wa illa budul loolu bepp fan bu yalla tan wax naa ne jaamu fa yàlla yokk fa say jaamu yàlla loo fa mën a def loo xam ne jaamu yàlla rek kooku kenn mën ko tuddee biddaa waaye boo jàppee ne dañ koo jagleel ci bis bii rek bis bii lii lañ ci jagleel lii lañ ci war a def te yonent bi jagleelul fa jaamu yàlla yooyu tënkul ko ci neen su boobaa euh, euh, da ngay dugg ci biddaa naka noonu boo ne jaamu yàlla yi waruñ koo def ci bis bii da ngay dugg ci biddaa kon ñaari biddaa la jël ay jaamu yàlla jagleelul ko bis boo xam ne yonent mosu koo jagleel kooku biddaa la ndax sos nga ci diine lu ci bokkut waaye jël ay bis dàq fa jaamu yàlla ne jaamu yàlla yi duñ ko fa def waruñ ko fa def kooku biddaa la ndax sos nga ci diine lu ci bokkut waaye rek nga wax ne <clears throat> jël ab bis jagleel ko ay jaamu yàlla yoo xam ne nii dangaa jàpp si sa xol ne bis bii rek moo jagoo jaamu yàlla yi saa yu ñëwee lii lañ ci war a def lii lañ ci war a def te yonentu deful loolu nga ne loolu biddaa moom moom loolu moom du biddaa loolu moytu loolu ñu biddaa la إن أريد الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته